ñu ngi waxaat jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou di santaat yàlla nag ba mu ñu mayee ñu fekke daaw fekke ren waaw comme ni ko dundee woon daaw rek mbégte mi ñu si àndaloon ren ji moom lañ si àndalaat ànd seeg mbégte bu baax a baax a baax di si booleeg sant bu baax ndaxte nit ki loo def daaw rek fekkewaat ko ren war ngaa santaat yàlla bu baax a baax si lool noonu ñu àndal si biir daara ndaw Serigne Saliou waaw bis bi moom comme ni ñu defee si yeneen bis rek dañoon segg café di leen defar meew si wàllum wàllu bi ma nekkee ñu defar ay ndekki jox ko ñi nga xamante ni moom la Cheikh mu taxa woolu pour ñu jàngale ay xasida ñu berneel leen si jox leen ko boole kook ay ay ay sase ndox pour ñoo xamante ni lépp loo si lépp lu si mbégte rek nga mën koo bokk moom. waaw daaw ak ren la tey la deuxième édition bi te saa yu ko sëñ bi dee woote rek ñu ngi ñaan waaye daara ndaw yi Serigne Saliou di ko gën a man di ko gën a tal di ko gën a fekkee daara ñaan tamit bi gën a jëm si kanam barki Serigne soxna ma la bu daara ndawi Serigne Saliou féete ci wàllu cuisine bi. waaw ah, comme que ñun ndawi Serigne Saliou amuñu lu dul Serigne Saliou amuñu lu dul waa kër sëriñ Touba bës bu ñu woote bu nekk ak nu manti toll ñun sunu liggéey war na caa feeñ comme que nag daaw sëñ bi woote woon na ko ñu ànd def suñ délégation wuy si ko ba mu neex ren moo tax ñu ne lu tee ñu tollanti ko ndax ñun lu ñu am sëriñ bi la kon lépp lu mu woote war nañ ci am taxawaay bu rafet. yàlla rek te sama te sama njaboot gi ñoom dañoo neex a bokkal liggéey bi ndax koo ci ne yemal fii foofu lay yem koo ci ne defal lale foofu noonu la koy defee daara Ndawi Serigne Sall moom woote naa yu bari ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax comme que daaw ko sëñ Mountakha woote ak ren nañ ñaan mu koy woote rek ñun moom incha allah heure bu ko wootee dinañ ko woy si waaw defoon nañ ko daal fekkee de nañuy baaxanta. waaw murid moom jëfe ndigal rek ñun moom dañ di ay donga di xaar ndigal. bu ndigal xasee jug moom dootuñu amati benn soxla budul jëfe ko rek di topp tamit suñu ginnaaw jëwri ni li leen diglu seen i ndigal rek ñun moom loolu rek lañ ci am bu ne acca rek ñu ngi ci ba korog muy jeex rek ñu ànd ak ñoom. waaw sant rek sant rek ndax euh, liggéey bi moom métti na méttiwul ndax bànneex bi mooy ëpp coono bi banneex bi moo tax moom coono bu dikkee rek euh, duñ ko yëg daal duñ ci yëg coono moom. dañuy sant rek coono moom bariwul wax dëgg yàlla dañuy sant rek. waa liggéey bi moom daaw lañ ko tàmbali woon ci ci suñu xasida bi ren mu ñëw rek ñi ñu yeesalaat ko tamit di sant rek euh, di ñaan tamit sëriñ bi mu yàgg suñu kanam amug wér yàgg koo woote ñu yàgg koo wuyu si bu baax a baax. ndeysaan jërëjëf soxna si ñu ngi lay ziare bu baax di ziare waa site bi nga àndal te di leen ñaanal jàmm ndax daanaka ñoom boo leen gis saa su ne rek ci liggéeyal borom tubaab ñu ngi leen ñu àgg àgg ci barke xasida yi mu mel ne soxna si kon euh, bu ñuy wax daayira ndawi Serigne Saliou ñoom seen slogan mooy marqué seen empreinte ci yoonu murit kon bu Cheikh Mouhamadul Mountakha wootee Serigne Saliou woote mën nañu wax ne borom Touba moo woote ñu ñëw fii nag ci peggu jumaa ji ci penku bi ñëwoon fii doon fi togg ay bernde ak ay xéewal di ko dundal ci al alxuraan ak xasida yi ndax boo gisee yaa ngi gis kuréel xasida yaa ngi jàng ku jóg toog sa morom toog euh, ñu ñëw di joxe fi ay bernde waaye nag boo gisee bis bi ni mu ni mu demee nga xam ne daanaka sëriñ bi moom daanaka léppam rek Serigne Touba la ndax boo xoolee fan yi ni taw bi demee biir Touba ak biir Sénégal te bañ ko jàppee ba léegi tey nekk tëj nga xam ne ko Cheikh Mouhamadul Mountakha day gis lu ñëwagut mooy suñum Serigne Touba mooy suñu lépp daal di ko ñaanal guddi fan ak wér-gëram ci barke borom Touba ak xasida di wax ne ndawi Serigne Saliou ñoom itam nag daanaka ñi ngi waajal mën nañ ko jàllale bu dee mën ngeen ñu ko may safar gu mag fee ci ñaari garage yi beneen bi ci topp mooy ubbi nañ dépôt boo xam ne mooy seesu daara ji nga ne képp koo xam ne bëgg nga dugg ci ndawi Serigne Saliou wala nga bëgg ci am mi ngi fi diggante euh, ñaari garage yi kon ñi ñaanal ñëpp jàmm daal ak sutura di wax site nga xam ne moom ngeen àndal nag ñi ngi koy ñaanal ci darajee borom Touba mu romb 2STV ak RTS ak ak ñoom TFM ndax daanaka moom ñoom ñoom boo leen gisee ci liggéeyal borom Touba nga leen di gis kon ñi ngi leen ñaanal tawfeex ak taw ak taysiir di wax ne mboolem murit yi ak mboolem taalibe yi nan daw abonné ci site bi mooy banati Assalaamy TV kon assalaam mooy jàmm kon Assalaamy TV na ngeen am tawfeex ci barke borom Touba jërë ngeen jëf ya rabbana bi hurmatil wa bi rasuli dayaan wa bi barakati xurufi alquran wal ahadis alqudsi wa bi xurmati xurufi alqasaid